ci rapport bi génn 2023 bi gis nañu ni industrie bu pon dina dugal loxoom bu baax ci mbiri réew mi muy lu listab di ŋàññ vraiment saytu yi dem na ba wane ni donc ingérence am na parce que ingérence bu amuloon euh, lii di texte bi nga xamante ni jàll na keroog du jàll parce que muy texte industrie du tabac parce que am na texte yu ko jiitu ñu ngi woon ci table gouvernement bi malheureusement donc bu ñu ñëwee jàllale texte bi dañuy jàpp ni kon am na ay loxo yu fa jaar donc vraiment gis nañ fi ay action yu bëri yoo xamante ni boo xoolee rapport bi di gis ni saa yu ñu jëlee décision pour appliquer dara industrie tabac day bind courrier te xam nga industrie buy bind du bind ay ñu ndaw industrie ay président lay bind ay ministre ak yu demee noonu pour que vraiment ñu retarder processus ni industrie da koy di def dans waaw du yomb mais xam nga comme ni ma ko waxee dañuy conscientiser davantage pour xamal ñi ñu jiite ne leen ni booy élaborer say politique de santé en matière de santé publique vraiment waroo ci waroo ci boole ñi nga xamante ni dañu am ay intérêts commerciaux waroo ci boole ki nga xamante ni moom dafay jaay drogue waroo ci boole ki nga xamante ni dafay rey juróom juróom ñett million doomu aadama at bu ne bon maintenant mm, euh, comme ni ma ko waxee heureusement que au Sénégal am nañ vraiment une équipe composée donc d'agents de Euh, comment dirais-je de société civile ak de médias donc ñoom ñoo dimbali ñuy gis lépp li nga xamante di ko dénoncer parce que le fait que ñu koy dénoncer dina tax état di ci bàyyi xel dina tax également même bu doon am na ñuy tëju ci ay bureau di waxtaan dinañ ko moytu parce que bis bu ñu ko gisee dañ koy dénoncer. Sénégal nag mi ngi ci fukkeelu place. ci bu ñu sukk sukkandikoo ci rapport bi. rapport bi balaa ñu koy lancé dafa am benn rapport au niveau africain bu ñu lancé donc fële ca Lomé donc muy classé yi nga xamante ni ñoom ñooy pays donc Sénégal nekk à la dixième position ah donc muy euh, comment dirais-je euh, euh, score boo xamante ni c'est moyen c'est acceptable ah mais. Euh, c'est parce que dafa am ay jéego yu ñu fi def jéego yu ñu fi def mooy loi anti tabac dafa tere vraiment toute forme d'ingérence de l'industrie tabac dans les politiques de santé publique loolu moo tax xëy na ak également l'équipe team du Sénégal bi nga xamante ni euh, ñoom ñooy saytu euh, yooyu di am ci diggante industrie tabac di ko dénoncer loolu tamit dafay wàññi dafay wàññi mbir mi donc rapport bi boo ko xoolee di nga gis ni. bu ñu bëggee xeex lii industrie bu di jokkalante ak ñenn ci kilifa yi ngir ñu mën a jàppale leen ci njaay mi faw ñu tëral ay luwaa yu dëgër yuy tax jokkalante boobu jafe lool ci kàddu waa listab